ak njublang bi mu dajale moom ak conseil constitutionnel ak direction générale des élections ak lu looloo may bañ a tudd ba fexe ba écarter suñu liste ci jamono jooyu mu def tappale bu ko raw nag ak conseil constitutionnel ak direction des générale des élections ak li may bañ a pour valider liste fi nga xam ne am na problème parité loolu mu ngi yem ci tappale ñoom mais ñun li ñu jàpp mooy dans les faits suñu liste nationale elle reste intacte te yàlla def na ni man mii di waxtaan ak yéen maay tête de liste loolu nag déclaration dañ koy firndeel li koy firndeelee mooy sénégalais yëpp ñu ngi laaj ana Yewwi Askan Wi nañ campagne bi dafa safadi moo ne ñoom ñi ngay wër dëkk bi de ñoom ci seen ñoo saxul suukar saxuñu xorom ñu wax lu Sénégal yi dégg te fu ñu dajale juróomi nit ay enveloppe nit ñi ñun nag suñu diggante askan wi cofeel la ak bëggante loo xam ne laluwul ci intérêt waaye kóolute gu dox suñu diggante ak askan wi moo tax ni ko honorable de cee waxee rek bu ñu commencé yëngatu rek nit ñi xam ni campagne ubbi na bu soobee yàlla liñ koy firndelee mooy ñu ngi dalal xel ñëpp campagne bi suñu campagne la du campagne yu yi nekk ci liste yi lañ ci fas yéene def mooy raw fuuf ñun suñu nekkoon ci liste yi pour nañ ko def à travers tout Sénégal incha dañ ko def ci Fuuta def ko Waalo def ko Ñambur def ko Bawol def ko Siin Saalum Bundu def ko Casamance Dakar nag xam naa ni le grand rassemblement li ñuy wax assemblée populaire boo xam ne lu kenn mësu ko gis bu soobee yàlla dinañ ko fi def mbokk yi dama bëgg ñun ñëpp jàpp dara élection yii waruñu koo perte mënuñu koo perte dañ koy gagné soobee yàlla que du question ñun du nekk ci liste yi ñu ay député assemblée loolu mooy objectif bi gis ngeen li xew barki démb benn réewu Asie fële ñu koy woowee Sri Lanka mën nañ ko musal suñu bopp musal ko Sénégal Sénégal yëpp dëppoo nañ ni Macky Sall bu fi am forcé troisième mandat du gouverner Sénégal ak ku ko mën a jàppale nag jënd lu mu bëgg a jënd yëpp ci ay waxkat moo xam ci presse moo xam ci ay kilifa moo xam moo xam mais su ñu forcé mandat complot conseil constitutionnel du gouverner réew loolu amuñu ci luñ ciy seet amuñu ci sago parce que dëgg bu jotee rek dañ koy wax réew mi ngeen ku ne dañ fi am sa nañu bàyyi tappale bi bu xaalis génnee ku nekk di wax bu xaalis génnee façon déclaration bu ne ku yaakaar ni mën nga jënd nit ñëpp gouverner te boobu amuloo majorité ci sa réew da ngay nax sa bopp ñi fi defoon troisième mandat ci coup d'état mujj ñi fi defoon troisième mandat yëpp Alpha Condé anamu ke anamu Idriss Déby anamu lan la jëriñ ku ñu jox réew ñaari at mu ci def moo tax élection bi ñu dalal seen xel tey lañ ci gën a taxaw na suñu nekkoon ñun sax ci liste yi te dinañ ko def fépp ci Sénégal te dinañ ko duma duma ko leer nañ ñu koy dànkaafu nag moom Macky Sall ak ak koy bu nag gëm loo ko mun na nekkee lu yëpp foofu ñu intimidé day ndax bopp dóoraat tëjaate bi bëri na saaga ji bëri na sosalaate ji bëri na lépp ñëpp a ngi koy gis Sénégal barki démb géej gi ngeen kaawu xale bi ñuy wax Pape Mamadou Seck ma koy wax Macky Sall wax ñu foo dugal Pape Mamadou Seck parce que comme ñoom ay assassin lañu rey nit ñi dara ci ñoom. bu dee dañ ko rey ba pare di ñu koy di koy habillé ñoom daal dañ ñu wax ñoo jàpp doomu jàmbur sosal ko créer ay dossier seen procureur bii nga xam ne li ma wax démb rek naay waxaat li tax ñu teg ko fi xam nañ ko liy diggante ba Macky Sall depuis Kaolack ba Fatick ba fii xam nañ ko na génn leeral Sénégalais yi fan la dugal doomu jàmbur bu ñu yaakaaree ni mën nañu intimider nit ñi dañuy nax seen bopp créer seen dossier terrorisme. seen dossier rébellion seen dossier lii seen dossier la ñu koy xaar ci taatu daal Macky Sall ak ñi mu àndal ñu koy dem xaafoot nii élection yii bu foogee ne dina ko sàcc bu romb doon day nax boppam barki dégg dégg ngeen ñu organiser seen trip seen i yu mën a fel mën a fel man du fi nekk dinaa laam-laame maa saa ñëwee naan ay daje naag Mballo nee na nee na suñ gagné élection yi dina ko nangu loolu mosuma koo xam Mballo amul fenn bu dee loolu lañ koy def liñ ciy jublu mooy préparer sàccub élection ba pare dama waxoon ma leeral ko fii bu sàccee élection yi du rees ci bureau duñ ko nangu kon man yi laay waxal foofu lay daaneel juróomi at ci gannaaw ci même période bi man de dama jiite woon liste Khalifa Ababacar Sall mi dafa jiitewoon liste donte complot na ko tëj ko mënul campagne keneen ak keneen jiite liste ñu ne leen bu leen jox Macky Sall majorité à l' assemblée nationale bu ci def lu baax dégluwuñ ñu jox nañ ko majorité waaye Sénégal àdduna yëpp dëppoo na ni juróomi at yi weesu Sénégal amuloon assemblée nationale li yées yi lu ñu am seen assemblée nationale mooy juróomi at yi ñoom buñ doon gor dañu waroon def seen bilan de législature war fu def proposition de lan moo la def ci seen majorité ci juróomi at yooyu dañu war a wax ak Sénégalais yi kon juróom at yooyu weesu na bilan bi baaxut ngir yàlla Sénégalais yi dañu bàyyi tappale bi liy defar réew mi ñun lay doon koo dégg réew 10 def ci lu baax nga jox ko assemblée nationale 10 def ci lu baax bu dellu see ne la jox ma assemblée nationale waxuma la nga nga may ko sax majorité relative waaye 10 pour cent de score sax Macky Sall war ko jox. enjeu yi nag ñëpp xam nañ ko enjeu troisième mandat mi ngi ci te ku ko wax fitna am ci réew mi enjeu musal Sénégal ci instabilité mi ngi ci. enjeu delloo gor yi Sénégal yëpp seen légitimité ba ñu mën a présenté ci élection bi ñu ko war a présenté mi ngi ci. enjeu musal suñu réew ci ay loi yu bon ñuy voté wala loi yu baax yi ñu bañ a voté tudd na ci léegi benn mooy yàq réew bi ñu bëgg a yàq réew bi ca papier bu am ci lu ñuy signé ak convention internationale dugal leen ci waxu genre te fu ñu la tuddee genre mooy na nga ñu def ba góor jigéen sax ci réew mi barki démb dégg ngeen lu ñuy wax OGM nga xam ne musiba la ci lu ñuy lekk ay gàncax yu ñuy modifié génétiquement voté nañu loi boobu dànk ci assemblée nationale léegi ñu commencé sol suñu doom yi loo xam ne feebar bu mbon bu nekk dina judd ci ñoom enjeu yi nekk ci élection bi kenn xamul lu mu toll ci ñetti fonction yi nga xam ne mooy fonction député bi ci gën am solo rek mooy contrôler l'action du gouvernement waaye bor Sénégal fan la toll Macky Sall leb naa leba leba leb te lépp li ko andi mooy gaaw di tabax quelques ponts defar train defar lii pour ne jox leen ma ñetteelu mandat bor boobu d'ici dix génération dañ koy fay ci anam yoo xam ne jaarul yoon suñu pétrole ak suñu gaz jaay nañ ko te xam ngeen ni tey la ëpp solo ndax gis ngeen li xew diggante Russie ak Ukraine Europe amatul gaz ñëpp ñi ngi teg bët suñu base Sénégal bi bu dee doomu Sénégal ñàkk nañu pour la personnalité ba seetaan Macky Sall ci ndóol la ñuy continuer dëkk tubaab yi jël suñu gaal ak suñu pétrole yëpp dem noosee ko ñoom. càcc gi nekk ci réew marché public yi détournement de deniers publics ñoom léegi seen i seen kër la jox ay coffre-fort di ci denc ay milliards ci jamono boobu ndaw ñi amuñu liggéey hôpitaux yu baaxul école yi baaxul leneen ak leneen loolu mooy enjeu élection bi est-ce que dinañu nangu nag gannaaw bu ñu sàccee alalu réew mi yëpp ñëw di ko jox nit ñi. ñuy gaaw di leen voté laaj jox leen cinq boo xam ne duñ ci def dara loolu mooy enjeu élection bi kon lii dinañu boole ñaar fa daanale mooy wax na ko léegi à partir de vendredi terrain bi dina saf saf nag ndax ñun suñu diggante ak sénégal yi relation d'amour la relation d'estime la cofeel la fu ñu dem gaay génn soo wu ñu joxe xaalis def nañ ko def ci Sénégal yëpp waaye ñun dañoo ñëw ak ay proposition ngoon bu nekk leader yi lañ ko def man de ñox naa rendez-vous chaque 22 heures sama page Facebook dinañ jukki